Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Je li euh, solo si euh, bi président de la République a mission à la tête de la direction générale euh, ñu am ci ay mbébét ay projet yu am solo yo xam nañ ko dérouler pour ñu remplacer War Sorano fam nekkoon démb ak barke sinon même le ko weesu te pour ñu il faut ñu nous ci ak personnel bi démarche bu bees bi nga xam ne moom lañu bëgg a mooy lépp lu ñuy def ñu mun di yëkkateendoo di dóorandoo parce que li nga bëgg a def même bu baaxee bu fekkee ne ñi jàppuñ ci euh, personnel bi gisu ci boppam personnel bi dafa ko projet boppam donc dina jafe pour nga mun koo def donc tey euh, ndëpp la ku nekk li nga xalaat ci kër gi nga wax ko euh, jafe-jafe yi ñu dajale leen wut ci ay saafara parce que loolu rek moo ñu fi tax a nekk Euh, te ci kaw loolu nag bugg nañ am taxawaay bu am solo ci personnel bi ñi nga xam ne dañoo am ay jafé jafé ay contrat yo xam yu yag lañ def fi dir bu yag té nek situation précaire ñu régler ko fexé ba Sorano na ma meloon daaw démb ak barki demb moy dem di jouer ci bir euh, Sénégal mun ko reprendre moy li ñi wax tournée décentralisation benen bi aussi moy tournée yi nga xam dañ lañ ko def à l'international ñu mun ko reprendre mais loolu maintenant il faudrait que ñu fexe bu production bi nga xam ne moom mooy suñu cœur de métier ak mission bi nga xam ne mooy valoriser suñu patrimoine culturel euh, renforcer diversité culturelle sénégalaise ñu mun ko ñu mun ko gën a ñoŋal te pour loolu am il faut que production bi gën a am solo te production boobu euh, fas yéene nañ taxaw ci def si kem lay kattan muy avalu moyen wàllu xarala pour ñu mun ko ñoŋal donc loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax ñu ne balaa ñuy partager gis-gis bi nañu bokk waxtaan ñun ñëpp su ràññee bu nekk muy technicien de surface bi muy gardien bi muy artiste ba muy administratif ñu bokk waxtaan ku nekk joxe si xalaatam. bu ko defee li ñuy tënk fii ku nekk dina ci mën a gis sa bopp te bu boobaa buñ koy mettre en œuvre dina yomb. Euh, fépp fu sénégalais nekk euh, fépp fu collectivité locale am na ñuy yéene dem foofu andil leen waa Sorano muy ensemble bi mun a jouer muy ballet bi muy TND bu ko defee euh, ñoo ñi nga xam ne dañoo bokk Sénégal te Sorano war mun a euh, wan leen li ñu am ci culture ci wàllu aada ak cosaan ñooñu aussi am droit mun a seetaan ñooñu daan am amatul loolu dinañ fexe mu gën a gaawee reprendre ko pour que véritablement euh, troupe yi mun di jouer partout au Sénégal mais au delà mun a dem si biir adduna bi jaay culture Sénégal représenter Sénégal. xam nga nit ki bu fekkee da nga koy laaj ay performance di ko laaj résultat foog nga mettre ko ci condition yu baax. té condition yoy bokku na pour que nit ki fi muy liggéey nga mun a defar liggéeyukaay bi moo tax ci li wàllu cadre de vie am nañ projet boo xam ne Sorano vert lañ koy woowee d'ailleurs lancé nañ ko tàmbali nañ ko donc pour que fi ñuy di liggéeyee ñu mun a am benn cadre de vie bu attrayant te loolu dinañ ci béy suñu waat bu baax baax bu kuñ dellu si waat Sorano xam ne changé na xar kanam am nañu beneen plateforme bu ñuy wax Sorano TV

ci walu emprunt au niveau des banques et cetera parce que ay contrats ci bëri ay contrats saisonniers lañ am c'est des contrats précaires yo xamné duñ ci am possibilité yoyu fa dañ ci bay suñu waar ba régulariser ñi nga xamné ñom ñoo nek ci situation yi. benen bi moy euh, walu traitement salaire yi euh, am nañu yéné retravailler wat ko pour que artistes yi ñu gën leen gën a traité bu baax mais loolu pour ñu def ko fokk état bi gën ñu gunge ci walu subvention té lolu vraiment dinañ ci saisir autorités yi mais benen bi moy ñu fexé ba li nga moy suñu ressource propre moy location troupe bi moy salle bi ñu gëna def gestion bu optimale pour nous permettre ñu am ay ressources additionnelles parce que moyen bu ñu yokko rek dina yomb pour ñu mettre les artistes et les comédiens et les agents dans les meilleures conditions de travail et de performance. Ba xar kanam gi mooy li ma rappelé déjà ñu des ko euh, ñu ngi ci parce que président de la République amna ben subvention d'investissement bu am solo bu mu def dugal na ci presque un milliard quatre cent daaw ak ren donc ñu ngi koy continuer pour gën a defar salle bi defar espace yi fexe ba Sorano na meloon ñu rompons ko parce que tu as day dox ni ma ko waxee sànq lépp luy matériel sonorisation machine etc nous ñu mun ko ba véritablement donc Sorano mun a performance bu ben war bi maintenant bu loolu amee ñu mun ko repositionner parce que aujourd'hui avons bi ni mu bindoo ak avancée technologique bi am na yu bëri yoo xam ne boo ko deful pratiquement donc dañuy romb nañu fexe ba loolu ñu méngale ko ak jamono euh, am un cadre de travail attrayant les travailleurs nekk ci ay conditions yu baax ñu am traitement bu baax ñu def ay production de qualité pour que surano mun a nekk nekk fa mu nekkoon démb ak barke dem mais loolu dinañ ko gën a intensifier comme ni ma la ko waxee woon sànq c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des plateformes digitales euh, Yo, xam ne ñu ngi leen di gën a mais ci ci ci ci ci à côté de ça am nañu euh, benn plateforme boo xam ne Sorano TV lañ ko bëgg a tuddee ba lépp lu ñuy def Sorano ci wàllu production ci troupe yi ñu mun ko jaarale foofu sénégalais yëpp jot ci. parce que encore une fois wax naa ko sànq adduna bi day dox aujourd'hui les jeunes donc ils sont très connectés je pense que c'est important pour que à ce niveau-là ñu mun ci def ay efforts pour que li ñuy def sénégalais mun cee jot. plus de vidéos d'information. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.